yu ndaw ñooñu ñëw di ñu déstabiliser parce que boobu dañ préparé bu yàgg pour la pour ñun ay weñ buy yomb la rek weñ buy naaw parce que mbedd bi moo ñu yar ñu xam the code of the street les codes de la rue loolu muy un deux nga dem tey ci loolu moo tax da gis ni dañuy restreindre dañuy restreindre loolu moo tax ngay gis ni buñ demee Facebook sonal gars yi ñu daw restreindre dama foogoon ne woon sax bàyyi nañ restriction bi mais gis nga dañu ma def sept jour ma pare ñu dooraat ma vingt deux jours restriction yaa ngi noonu donc bu fekkoon ni tey affaire bi dalul nekkul di naan kakk ci seen yax yi kon restriction du am waaw dañ koy sante yàlla kon nag Instagram tamit ñoom dañuy ñëwaat nekk ci Instagram bi di signaler loolu moo tax des fois doo am ay notification whatever so dem leen xooli ci YouTube bi live bi maa ngi def Instagram amul benn live boo xam ne maa ngi koy def gars yi dugal ko YouTube moom ndeem awma ay YouTube amul benn live bu amul ay cent deux cent trois cent quatre cent mille vues amul benn live bu am ay quatre amul ay quatre cent mille vues amul benn live bu am ay bu amul ay cinq cent mille vues no amul. boo tey boo ko totalisé boo duggee YouTube ay des centaines de milliers de vues buñ ko dugalee léegi-léegi nga dem xoolee amul benn live booy fekk moo la amul booy fekk benn 500 vues 400 vues donc loolu yëpp am na la lay wone que Sénégal ñi ngi déglu ñi ngi ñuy bàyyi xel moo tax bés bu leen di wax tam dañ leen di wax li dëggu lu nekk parce que amul kuy dox Sénégal ñi bañ ak ñi bëgg pour dul déglu. seen papa yi dañuy déglu seen yaay di déglu seen frère di déglu seen sœur di déglu parce que nit yi dofuñu xam nañ fu dëgg nekk xam nañ kuy wax dëgg xam nañ liy wax dëgg dofuñu de ñu ay ñu donc il faut que ñun sénégalais yi ñu focus ci combat bi il faut ñu focus ci combat gis nga Sonko du ñu gën a gore gis nga tey avocat mi demoon nañ seeti ji ko xam ngeen lan leen wax ndem mi ngi ci lalu hôpital daf na leen bu fekkee sacrifice dafa war a am man maa war a doon ku njëkk a sacrifié wu Sonko moo leen ko waxee bu dee sacrifice moo war a am man maa war a doon ku njëkk a sacrifié wu loolu la wax yi tey te gis nga prisonnier lu ma ci yokk benn moyen wu xeex la am ci bépp ci àdduna bu gën a efficace mooy grève de la faim saay grève de la faim tàmbalewul fii ci prisonnier rek partout dans le monde partout dans le monde grève de la faim mooy arme de guerre mooy arme de résistance su prisonnier rawatina nag politique prisonnier bu bu bu bu de la faim amul leneen amul am lan lay def muy Mahatma Gandhi muy boo demee boo demee ci presque le plus grand révolutionnaire bi monde dañ grève de la faim ba ci Nelson Mandela sax grève na grève de la faim prisonniers politiques yi fi jaar adduna yëpp def nañ grève de la faim parce que c'est des stratégies de lutte très efficaces ci biir prison bi moo tax Sonko wax na ni mais bu fekkee ne dafa am ku war a sacrifier bu dul man kan la war a doon parce que foofu la ko Sénégal toll Sonko fu ko Sénégal toll mooy mu sacrifier wu mu jaayante mu joxewu mu xañ boppam dund mu xañ boppam lekk ak naan nga xañ boppam lekk ak naan parce que dañ ko tooñ parce que dañ ko fenal parce que dañ ko sosal parce que ci ay caaxaan lañ ko jàppee dugal ko ci kasu mu kooku lépp lu mu def dagan na lépp sëriñ ba la ne bu dee xaru la ne ko da dul duul sa juróom-ñaari baay dañuy fen man maa la wax loolu lépp lépp kuy sëriñ sëriñtu na la kii bu dee day xaru nee ko dangay ngay fen sa baay bu jur sa baay day fen sa sëriñ day duul ku ko mag day duul si juróom-ñaari xeetam dañuy duul sëriñ bu la wax loolu amul xam-xam neel sëriñ boobu mu dem jàngi bu la waxee loolu nee ko mu dem jàngi lan la yàlla wax ci tooñeel ci jàpp doomu aadama tooñ ko fenal ko sosal ko dugal ko ci kaso kooku di grève de la faim ñu ne nooyoo boo fa dee da ngay xam moo mun a kàcc moo mun a fen fan la yàlla bind loolu dam leen ubbi alxuraan wala bible fu yàlla bindee ni bu ñu la tooñee noot la dugal la ci kaso tëj la fa di la toroxal nga bugg a jot sa loo war a lekk ñu ne doo ci jot dañ koy nangam nangam après loolu noonu yow boo dee safara nga jëm nee leen ko day duul ku wax loolu amul fenn du ci alxuraan du ci bible waxi doomi xaraam kese la képp waxu bu bàyyam marul bun yaayam a ngi mar bun ku ko wax ku koy wax xooleen bu baax bu bàyyam maru bun yaayam a ngi mar bun ñu ngi ci dans le mara marabu marbunisme dans mar marbunisme lañ nekk Sonko a raison et Sonko rek yemu ci Hannibal Djim dafa grève de la faim ba tey ji ñu ngi yóbbu nañ ko évacuer nañ ko d'urgence hôpital principal nit dof mi ngi grève de la faim mooy le seul élément mooy lenn kese lu possible loo xam ne mun na leen sauver mooy grève de la faim mooy la Pape Alé Niang def ñu génne ko dem yoonam Pape Alé Niang sonn lu ci boppam Pape Alé Niang premier jour nga koy dugal mu grève de la faim ne la bañu ma ci dund bañu ma ci dee man doo ma taru xale noonu mag yow mënoo jël say njaboot ñuy dox di leen neex di naaw di fly di voyager depuis ban 1900 Amadou Sall mi ngi voyager ab depuis ban ministre kañ ngeen gëj a gis ba Amadou Sall mi ngi voyagé mi ngi naaw mi ngi ci avion yi di fly Ibrahima Sall doomam jooju ñëw na jóge na amerique ñëw na Sénégal mi ngi vacance foofu du ngi fly nga jël Ousmane Sonko ay doomam xañ ko bat ba pare ñu waxati nga yanu baayam yanu yóbbu dem dugal ci kaso bi bëgg a xañ doomu aadama yi seen yaakaar bëgg xañ doomu aadama yi révolution bu bëgg a wax bëgg xañ doomu aadama changement et cetera et après Ousmane Sonko war na conscience am war na ko mën a may muy lekk di naan noonu noonu ku bëgg akara da ngay ñeme kaani balaa ngaa xeexal nit nit ki si boppam day xeexal boppam te ñoom Cheikh Bara duñ ko bàyyi bu mu fi daanoo ba léegi Cheikh Bara bu mu duggee ba léegi mu ngi ci hôpital bi pourtant mënoon naa toog de njabootam di ko indil ay lekk ak ay naan te Pape Alé ko jaayante léegi nag Macky Sall dafa benn jeu bu mu bëgg def xam nga lan la bëgg woon Sénégalais yi <laughs> non Macky du nit dafa bëgg woon Sénégalais Sonko grève de la faim wul Pape Alé Niang mooy grève de la faim Sonko moo fa jiitu Pape Alé Niang di grève de la bu muy grève de la faim Pape Alé Niang moom duggagul mais mu ñëw ne moom ah, Pape Alé dafay grève de la faim dafa sonn lool moom mu libéré ko comme si moom Sonko kon day tricher moo tax ñu génn naan ay mi ngi naan kafeek ay day lekk ak ay mi ngi nangam ak nangam keroog reer na añ na di bëgg a gëmloo bëgg a minimiser grève de la faim bu Sonko bëgg bëgg a ñàkk lu respect grève de la faim bu Sonko mais bu wane ni bu ale Pape Alé Niang mais bu original bi moom mu ngi waaj a dee nañ ko génne mais bu Sonko bi bu féeg la féeg bu grève parce que mi ngi lekk mi ngi naan ay kàcc di ko fenal parce que ñoom pouvoir la fu ñu leen teg la gis nga pouvoir sa waay déggoo lu ma la pouvoir kenn du ko jox nit bu ñuul nit bu ñuul balaa nga ko jox pouvoir xoolal juróom ñaari xeetam bu ci boo ci gisee benn workat rek boo ko jox benn workat boo ko gisee ci ay juróom-ñaari xeetam rek bu ko jox nit bu ñuul war moo gën a gaaw ci moom que jaarale mbir yi yoon loolu moo tax ñoom Afrique Afrique di subir parce que dafa bëri ay traite booy wëri bu buñ la bu la la tegalee cinquante nit yu weex ak cinquante nit yu ñuul jaxase leen muy cent ñu ne la génneel ñu fii traite demal ci nit yu ñuul yi nga génne fa cinquante yëpp jëlal cinquante yëpp yóbbu boo deful ndànk quarante huit yëpp di nga gañe quarante yëpp ci traître yi nit yu ñuul yii la parce que du ñu nit malgré tout xool leen xool leen traîtrise bi am ci so mais Sonko Sonko lu ko lu lu ko dal dafa metti mais xool leen ñu àndoon ak Sonko di ree ak moom wër ko wax ji bari ana ñu tey quatre-vingt-dix pour cent ils ont ont trahi Sonko ana Barthélemy Diaz ndeysaan cëtt your best friend your best friend will be your worst enemy Sonko bu taxawoon Barthélemy Diaz taxaw xalifa Sall taxaw gars yi taxaw lu mu wax gars yi tàcc xool tey ñooñu nuñ ko def moment bi mu toog ci situation bu gën a garaaw ñu war a ñëw taxaw ko moment boobu lañ ko la ñuy jéem a dagg tànk yi moment bu gën a doy waar boo xam ni ci la gën a Sonko soxla xam nga bu neexee ñëpp ñëw bu ñëw bu neexee ñëpp ñëw de Sonko moment bu mu neexee adduna bi yëpp a ñëw Sonko mooy seen baay seen baay ñëw na mais bu mettee moo tax doomu aadama bul mës sa tànn sa xarit ci bu neexee bul mës sa tànn sa xarit boo nàggee ci benn koñ mat cinquante buñ la waxee ne samay àndandoo lañ bul fa waxagum kenn sa xarit la da naan samay àndoon ñii ñan la samay àndandoo am na foo leen di toll ci situation bu tàng tàng tàng tàng tàng metti ci ngay gis benn wala ñaar yu ñëw taxaw bu boobaa bu loolu weesoo nag buñ la laajee da nga naan ñii ñëpp samay àndandoo lañ kii mooy sama xarit ak kii wala kii rek mooy sama xarit xarit kenn du ko tànn ci bànneex xarit kenn du ko tànn ci ngénte xarit kenn ko tànn ci sabar xarit kenn ko tànn ci mariage déedéet xarit ci dëj lañ koy tànn dëj xarit ci dëj lañ koy tànn xarit ci naqar lañ koy tànn xarit ci ay xat-xat lañ koy tànn xarit ci ay tolof-tolof lañ koy tànn xarit kenn du ko tànn ci mbégteeg yi bànneex bu naqaree rek ñu won la seen bopp moo tax tey gis nga ndeysaan bu ma sax déglu Barthélémy Dias gis ngeen ni ñu def di salte yi def di waajal nag Karim Wade dem ana ñooñu doon wax naa ñi man maay yaay Ousmane Sonko kennaan maay bàjjanam kennaan man maay tàntaam tey ñëpp a daw tey Ousmane Sonko ñëpp ko daw dañ ne la victoire a beaucoup de parents la victoire a beaucoup de parents la défaite et euh, nu ñu waxee la en la la défaite est orphelin la défaite est orphelin la victoire est parenté bu lu sotti am boroom bu baaxee ñëpp ñëw kii na ne maay bàjjan kii na maay tànt comme ci yeen xool leen ko ci yeen wala nekkee ci koñ bi di góor góorgóorlu tekkiwu leen comme ni ñu koy waxee ñoom tekki ni koy tuddee amagu leen kenn du bugg a nekk seen nijaay kenn du bugg a nekk seen tante kenn du bugg a nekk seen bàjjan waaw waaw tefet elle est orpheline boo leen ñàkkee mbokk yi ndaw ngeen di seen papa ngeen di xam seen yaay wala seen tante wala seen frère ak sœur boo leen ñàkkee boo leen commencé am ngay commencé gis ñoom ñooy ñëwal seen bopp man man sa bàjjan laa man ak sa baay ñoo bokk nangam man kii naan kii sa tante laa man sa naan kii man sa xaritu baay laa loolu c'est sénégalais bu mettee ñëpp rocceekuwaat moo tax Ousmane